ne ñëw ngir nemmeeku jumaa ji nga xam ne ñun bokki taaliba yépp ñoo fi ñëw ngir defal ko Serigne Touba. ne bi ñu tàmbalee liggéey bi boobu ak léegi léegi moo am ab diir waaye yàggul noonu nag fa tabaarakallaah tey ñu fas yéene koy inauguré. ne ñu àndoon ko Serigne Saliou Mbacké ne ñu nekk ci nag ne amoon nay plan yu bari ne ba Serigne Saliou ne mu tànn ci plan yooyu yëpp benn plan ñu yàlla dogal ñun taalibe ñu jublu ci nee man ak samay morom nee ñu jàpp ci liggéey bi nee di ko liggéey nag ba tey yàlla dogal mu sotti ne sëriñ bi jàppoon tey jii fa tabaarakallaaw ñu war a jublu àjjuma ngir inauguration bi ne jumaa nee comme niñ ko waxee nee jullit yëpp ñoo ko bokk nee du murid yi rek ñoo ko moom de nee waaye nag yàlla dafa dogal dañ koo jagleel maam Cheikh Ahmad Bamba nee moom mi nga xam ne moom la ñu gëm nee man nag maa ngi gërëm yàlla ne ci ah fa sant yàlla bu baax ngir ñi ko tàmbali woon ci laa bokk ne may gërëm yàlla ci bi ma mayee kartan fa tabaarakalla ba ma fekke mën a gis bis bii nga xam ne moom lañu war a yu na gërëm Masaalikul Jinaan ne xam naa ni sëriñ bi yaakaar naa ni sa xol sedd na mais ñun talibé dal ñoo ngi taxaw buñ ci amé dara luñu wara jubanti nga wax ñuko rek ñu taxaw ci ne ndax kat ñun sa bànneex rek la ñuy wut ak lu bax lu rafet ne ak lu mengo ak bëgg-bëgg maam Cheikh Ahmad Bamba ne amul lu rafet nee ba wessu sayyiduna muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. sallam wessu mam cheikh ahmed bamba nee motax ñun bokki talibé lepp luñu def rek xeeb nañ ko nee ma ngi lay wax bismillah nee ndax yow ya mo wax ne nee man ma wara dalal gan ñi nee yaa ma wax de nee lolo tax tay mbàkke ma di dalal di bal dalal sama mbokki taliba yëpp nee di len xamal ne nee la ci bëggoon nee muy juma ju doon juma ju muccu ayib nee nga xam bu ñuy lim yi rafet yi ci aduna bi nee ñu limaale ko Masaalikul Jinaan nee bi tay nak awma dara wax nee xanaa di la gërëm nee di gërëm it ñi nga fi wuutu nee ndax ñoom ñëpp dañ ma jàppale woon encouragé ma nee ngir ma sottal ko nee damay wax ne liggéey Masaalikul Jinaan liggéey ñëpp la ne waaye kon ñun waa communauté Mouride. ne war nañoo am sag bu day ni Masaalikul jinaa ne bi ñu defaree loo xam ne. ne muy néegu yàlla. ne mu mucc ayib nag. ne incha allah ci kàttanu suñu borom subhaanahu wa taala ay nit dinañ jóge ba bitim réew ngir ñëw seetaan si Masaalikul jinaa ne ndax ay nit ñu ngi jógee bitim réew di seetaan mosquée Assane II ne ani ak yeneen i juma ne ñun daal ñun tabaarakallaaw ñun askan murit ñun ñi nga xam ñooy yoon bi ñun ñëpp war nañu am fierté ci ji Jinaan ne man nag lépp lu ma defal Serigne Touba ne ak lépp lu ma defal Touba it xem naa nee xam naa ko nee bu nu yàlla dimbale ba nga noppalu ne dinaa la nuyu si ne wax la yeneeni xalaat yoo xam ne ne yaakaar naan dina baax ci tuuba ne te dina baax ci yoon wi ne loolu boo ma ci joxee ndigal rek nee ma jublu ci loolu ne yal na yeex ba mo wuy ci sama borom ne man lo rek la japp ne ab talibé la rek bu wara dox ci yoon wi ne ngir rek ngir bëgg am ngeureuma serigne Bamba. serigne bi neena mi ngi lay dolé sante bu baax di la ci nim la ko daan waxé naka jek ndax yow président serigne bi neena xam nga li nga ak yoonu murit xam na li nga japp sa ak serigne Touba. ndax nguur boole wala ak yoonu murit mu ne loolu nag sëriñ bi jàpp na ko te sa tànk tey yii firnde la ci ndax wàccoon na la sax mu ne boo yónnee woon mu jàpp ne teew nga kon mi ngi lay sant bu baax kon ci ànd bi nga xam ne lii nga xam ne yéen a ko bokk muy ubbi teg jumaa ji kon sëriñ bi dafa wax ne mune ne na sa xel dal bu baax ndax serigne touba dafa waxone an man wasalani la la la laa yu xaridu duni wii fa inna yakunu min innal muxarabina wa an man wasalina li duniya faxat fa inna allaaha yukrimuhu maa daama xeyuk nee na képp koo xam ne ñëw nga ci man te àdduna taxu laa jug suñ borom dana la boole ci ñi ko gën a jege ku ñëw ci man nag te àdduna tax laa jug suñ borom dana la teral sa giirug dundu mu ne kon képp ku yaakaar sëriñ Tuuba na nga xam ne suñ borom dana la teral sa giirug dund nee na kon mi ngi lay fàttali lam la waxoon rek ba nga ñëwee Touba mu wax la ko ci làmmiñam ci li nga xam ne jëfal nga ko yoonu murit te ñëpp xam ko muy loo xam ne moom da koy fàttali mu ne ta wax na la ko keroog mu ne kon loolu nanga xam ne du ko fàtte ñi ko séqalit duñ ko fàtte kon cant rek la la ameel ak ak di la ñaanal mu ne ñaan giit mooy suñ borom dëgëral la gën laa dëgëral kàttanal la gën a dolli sag nga gën a wéttali réew mi lu yàgg ndax loolu bëgg-bëggam la nee na itam mu ne ko waxoon bi campagne bi jub mu ne dégg bu baax lam la ci waxoon it foofu rek la ci nekk mu ne ndax sëriñ bi dalaa waxoon ne mu ne daf fee nekkoon ak ay kilifaam sañu ta def sañu ta dindi léegi nag ndegam yàlla def na moom mu nekk fi te xam ni nga demee ci moom lépp loo xam ne lu ko war sa diggante ak moom nee mi ngi ci te mi ngi ci bu baax a baax mu ne te gën dina ko gën a leeral ba nga gën koo xam mu ne kon mi ngi lay sant bu baax di la gërëm ndax waxtu wi dafa jot te sëriñ bi ñàkk lu mu bëgg a wax ak yow waaye mi ngi lay sant bu baax di la gërëm ci jëf yi nga xam ne jëf nga ko ci yoon wi jëf ko ci réew mi ndax lépp looy jëfal réew mi bu dil Tuubaa cant gi war na ko ndax serigne saliw bim fi toge magal tuba ga njëkk jall ba gambuk ti tiwaawoon accès dafa yenn ci ndaw ne lepp lo defal touba nang ko fa def mu kon lo defal réew mi rek mom nga ko defal te réew sa jëf ñëpp gis nañ ko kenn fàttewu ko jere ngeen jëf wasalaamualeykum wa rahmatullah